gis ngeen ko jóge nañu fële ca marché Sandaga ñu ngi fii nag si euh, Soumbédioune ñëwoon fii pour euh, taataan euh, kàddu yi nga xam ne nit ñi fi nekk di daan seen doole ñoom tamit nekk ay jàmbaar lool. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yaay. ñu la fekk fii si Soumbédioune. Mhm. Euh, bëggoon xam déjà tur naka la. maam As laa tudd. Euh, yàgg nga ci liggéey bii di euh, Mareyeur. waaw xaw naa ci durée tuuti quoi yàgg naa ci yàgguma ci parce que am naa fi ñu ma fi jiitu am na ñoo xamante ne man maa ngi fi jiitu. 2000 mhm. laa ci démarré ba léegi. naka nga neexoon na au début. mais fi ñu toll nii dafa metti parce que condition bi ñu mettre moo tax mu xaw a metti su ñun usines yi au début dana daan jox xaalis na la demal jëndi mais léegi yow yaay def say propre jënd mun nañ la fay des fois ñenn ñi duñ la fay ci ay risque la nekk. xam mais ñun suñu jun suñu premier problème numéro un mooy amuñu agrément bu ñu nee bu ñu jëndee jën yaraax la euh, caaree la dem wala wakaam pour ut certificat parce que boo yebee jën di ko yóbbu usine bu la policier yi jàppee boo amulee certificat dañuy saisir jën waaw suñu liggéeyu find de décembre booy xool mooy nekk mois bi nga xamante ni dinañ ci am benn dizaine de jours boo xamante ni prix jën yi day augmenté day multiplié wu mais loolu benn dix jours lay def mu jeex gisoo nii gars yëpp clôture nañ mardi bii passé comme tey jii nii man maa ngi am expédition bu ma war a def nii bu ñu takkee tey balaa ñoo takkaat janvier rek parce que boo xoolee nawet bi gars yi li ñu utiliser jën yëpp si nawet bi la yam bu weesoo nawet bi après gars yi dañuy pause balaa ñoo démarré ay le cinq dix janvier sonn. Euh, mhm. ñu ngi mhm. euh, di ñaan yàlla ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim génn ci xam ma bu naree ñaaw yàlla mel ni bi ñu siy réego nag xam ma mu am ay surprise yu dàq yu ñu jot 2018 parce que comme ñun ñu ngi am suñu kër bi ñu ngi ko war a am na ñeneen. proposition offre yu mag Sall jox ba léegi gisaguñ ko parce que ñu ngi wax ay frigo ak ay financement yu war a jóge ci DER bi bon mu ngi ñëw mais majorité bi sumba jun amaguñu. sëñ yaa booy maa lay fay euh, bi naka la. moom Thierno. man Thierno yow laa. Euh, euh, yàgg nga ci. waaw yàgg naa ci. Euh, naka la liggéey bi waaw liggéey moom daanaka moom naka la méttiwul saa saa moom xam nga moo lay demulee géej moom xam nga essence bu mu manqué nii gars yi dañuy am waaw le temps yëpp gis si dëkk bi. yow yàgg nga si liggéey. waaw yàgg naa si loolu def naa si cinq ans kay daanaka. Euh, yéen tabax tabax ngeen ëpp lu maanaam sax daal da gis da ngay jël sa jën man sama waaye war ko jaayaat xam nga toog xaar yàlla doo gis client dama ne koy mujjee placé waat yóbbaat ko xam si usine bi waaw. Euh, mois de décembre nga ci la muy fête bu mag. Mhm. Euh, di waajal fin d'année bi naka nga gisee décembre bi ndax yaa ngi ciy gis sa bopp. waaw dëkk moom daanaka moom macha allah quoi macha allah dinaa seen bopp xam nga rek mais benn côté moom wax dëgg yàlla dafa des quoi waaw émergent bi ñuy wax moom xam nga émergent bi mooy maanaam xam nga dimbali doomu yi. waaw xaalis bi di circulé dëkk bi xam ne ñëpp ci seen bopp. Euh, ñu koy waajal muy ñëw. Euh, nga xam ne ñoom yi nga xam ne ñoo fi gën a takkaat liggéey rek xam ne bi liggéey rek la daal liggéey rek rek waaw ñoom maanaam Sénégal daal yàlla na fi jàmm sax waaw élection yi jëm tamit yàlla na fi waaw moom mu jël si jàmm ko la meer gañ waaw waaw moom tamit suñu nekkee tamit maanaam suñu borom moo ko nar a joxaat réew mi maanaam ñu ñaan yàlla daal xam affaire yi gën a naat daal gën a naat waaw. jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi lay lan ngay waaw maa ngi leen di gërëm dex de xam ne maanaam dara fi ñu tudd daa gërëm. waaw nee ko suivre na bu baax a baax te xam ne maanaam tere bi gënal si tere yi. <laughs> parce que sëñ Ba ñun suñu bëggee fii ñun Baay Faal yi ñu koy bëggee bu baax a baax. waaw.